mbokk yi dal leen ak jàmm diwaanu Moussala c'est région du Kédougou la fa xew ni ki démb doy na waar ubbi l'observateur mu ngi xëy di nettali musiba nga xam ne moo fa gontee mu ngi naan benn ndaw bu takk der yi tegoon loxo nag mu mujjee faat takk der bi nga xam ne moo ko doon saytu boobulee policier di wuyoo si turu Mohamed Ndaw gone gu góor gi da koo jàmpaaka mu faatu moom gone gu góor gee nag buñ sukkandikoo si yéenekaay bi ginnaaw ba mu defee jéye jooju dafa dugg si benn pharmacie fekk fa soxna si nga xam ne moo fa doon saytu boobulee pharmacie jël paaka jam ko ko ba soxna soo si jëli si ay gaañu gaañu yu waaye fa mu mujjee gën a doy waar ndaxte moom moomee gën a góor ga dafa mujjee jël paaka teg sa put ga dawal daa di faatu maanaam daa di xaru jamono joojee jiyee yey am si diwaanu musala fii si diwaanu Ndakaaru moom mi ngi doon tàng jër si place de l'indépendance jamono ji nga xamante ni bi waa collectif ñoo lànk ñoo beñ ñi doon ñaxtu ngir yokk tem courant bi ñu ngi doon janoog takk der yi nga xam ne aaye woon nañ leen ñu yegg foofu ci place de l'indépendance le quotidien naan moom kay niki démb tàngoon na lool ci ajuma ji ndaxte lacrymogène yi sonaloon na lool waa ñoo lànk waaye tamit ci manifestants yi ñu teg ci loxo ñu bëree bëri maanaam ëpp na ñaar fukki doomi aadama yoo xam ne teg nañ leen loxo ci yooyu les manifestants vox populi naan moom kay lu weesu manifestants yi ñi nga xam te it ñoo di journalistes dafa mel ni police yi dañ leen singali woon dëgg maanaam sonal nañ leen lool xañ leen ñu def seen liggéey waaye tamit di leen brutaliser dëgg maanaam di leen teg musiba yu doy waar les éconaan ñoo lànk kay dañ leen brimer dëgg kay maanaam dañ leen làpp ba ñu xool benn bërëb ñi nga xam ne nag ñoo di takk der yi ñoo def mbir mu ni mel ñi nga xam ne ñoo di manifestant yu bëri ñi nag ñu teg leen loxo jege nañu fanweer waaye ginnaaw ba bàyyi nañu leen buñ sukkandikoo si yéenekaay bi si boori une heure du matin lañ leen teggi loxo yéenekaay bi naan a gàntal pexe yi Fall ñiy sol ay yëre jaaykat ngir mën a jàpp nit ñu bëri ba tas boobu les manifestations source anaan moom kay ay xiir dëgg lañ leen caw ñoom ñi nga xam ne ñoo di journaliste ràññee nañ ko te dinañu def lépp ba yoon dal ci kawam maanaam def li war ci moom tax waatur bi naan ñoo lànk dañoo janoog ñoo bañug ñi nga xam ne ñoo di géme yi journaliste yi ñu teg leen ay musiba yu doy waar li taxoon ñuy ñaxtu nag mooy ngir ñu wàññi courant bi dafa mel ni seen bëgg-bëgg boobu mënta àttu buñ sukkandikoo si ki nga xam ne moo fi jiite woon kër gi di Senelec Mamadou Makhtar Cissé mi ministre si naan lépp loo xamante bi nag moo waral ñuy togg courant bi ba ko jox doomi Sénégal yi lépp bitim réew lañ ko jéggaanee te loolee ni bitim réew di doxee jamono ji mënuñu see wàññi dara ndaxte moomuñu dara lépp dañ ko jéggaandi critique naan jamono baax a baax maanaam wax na li nga xamante ni bii moo tax courant bi ñu yokk ko te kenn mënu ko wàññiwaat mu ngi naan lu wuteeg doole ak ñaq wi nga xam ne moom la liggéeykatu Sénégal di ñaq leneen lu si topp rek lépp loo xam ne moo jëm si courant bi bitim réew lañ koy jëggaanee moo waral courant bi nii rek la mën a demee fii si réewum Sénégal source anaan Makhtar Cissé kay fi mu ngay wax ay dëggam dëgg nag di wax naan moom kay nañu wóolu nguur gi rek si ni nga xam na ko le quotidien moom fekkee ne ki nga xam moom Luc mu a jege ay ñoñam ndaxte foofu ñu yóbbu ko sa ndar amul kenn koo xam ne jege na ko fa le soleil yéene moom fësal si xëtamu njëkkam projet bi nga xamante ni bii nguurug Sénégal jublu na ko nag maanaam projet bi nga xam ne moom la wax logements mu ngi naan ñu ngi exécuté boobu le projet te doxalinu bii le projet dina jullu toll si benn million emploi boo xamante ni bi daanaka dina jàppale ñu bëri dimbali si réewum Sénégal mu ngi naan plateforme bi nga xam ne si la ñuy bindoo nag ubbi nañ ko jamono ji ba doomi Sénégal yu bëri nag commencé nañoo bindu si boobule projet ngir am ay delluwaay nu mu gën a mucc ayib si gox yu feccantikoo fii si biir réewum Sénégal waaye tamit dina ubbi ay opportunité yu bëri yoo xam ne moo jëm si wàllum immobilier jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah